waaw Ahmed Khalifa Niass de boo gisee lan moo tax moom moo taxawoon ne moo ngi ñaan Macky Sall ñu fomm élection yi moo taxawaat fii naam Sonko pour mu bokk ci élection yi loolu lépp nag moo Macky réeroo woon ci dara loolu yóbbuwuñ ci débat lu dul débat bi waa PDS nekkoon naan Karim day bokk Karim day bokk Karim day bokk ñun dañ ñoo bëgg yóbbu ci débat ñu naan Sonko day bokk waaw mën nañoo fomm élection yi te Sonko bokk moom kay bu Sonko dee bokk jar na sax ñu fomm élection non non nekk ci logique boobu logique boobu war a nekk mooy jomaay mooy Sonko jomaay ñëw na nañ dem lan moo tax ñoom ñu doon xeex pour Sonko du bokk gëmmal dóor lu nekk jaar fi gaar waale lu nekk ñu wax ko ko président am na réew yoo xam ne lii bu doon am dañ doon rey du wax ju nekk wax nañ ko fi di gaaruwaale Sonko tey ñuy wax le contraire moo tax même bu ko Sonko naroon sax même bu ko naroon de donte man dàquma dialogue ndax dialogue moom ñu ñuy bëgg jaboli sax ci côté boobu noonu da dialogue moom dàquma ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax dialogue na ak ay yéefar te bi ñuy dialogue fekk na ñu doon xeex ba xeex bi metti lool ñu mujj dialogue ci ay charte yoo xam ne kenn ku nekk daf koo war a sàmm donte loolu mujj na yàqu parce que yéefar yi mujj ñu respecté loolu ñu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon man dàquma dialogue eh, li may dàq te xam naa ne Sonko du ko def mukk mooy diil ci ginnaaw askan wi waaw dégg naa Badara Gadiabou moom dinaa ñëw ci moom seen waxi naa feq yi yëpp lépp luñ man pour nit ñi débarrassé wu son sori Sonko dinañ ko def jaar nañ pexe bu nekk mënuñu ko am léegi ñu ngi ko bëgg a jaaree ci pexe ci ci pexe ah kon que dialogue na mu ngi ci diil bi te ñoom kat ñoo daan wax naan dialogue kat dialogue kat. tekkiwul ne da ngay diil mais fi mu toll ñoom ñoo ñu bëgg gëmloo ne Sonko bu jalagee ak Macky Sall rek diil na man na xaw ma jalag am na xaw ma amul mais xam naa ne Sonko daal du war askan bi te fu mu féete fa laa mag ñu bari wasalaamaaleykum.